parce que boobu ma yaay moo ma gënaloon lu ma am. Mhm. il faut ma gis ko. ñëw naa toog un mois Covid bi ñëw. Oh. deux mois suma yaay gaañu. ci biir oh. Covid bi. Oh, masa jour bu mu am deux mois ci suuf suma sista bi ko yore woon gaañu aussi. ndax lu ne dégg naa ko. bay Fall ëmb na rek laa déggagul. waaw day jaay sangara day luwe ay jigéen ñu toog fii lu ne dégg naa ko.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 Euh, muy Baye Fall moom lañu seet si ci bërëbu liggéeyukaayam fas yéene Cheikh ak moom waxtaan Baye Fall dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre. waaw sama gars yi maa leen di ziar di kontaan vraiment people 221 ñëw fii ci kër gi vraiment suñu xool sedd na di wax ni liggéey bi rafet na di leen ñaanal télé bi yàlla def ko mu wër àdduna waaw di ñaanal nag ñi génn àdduna di ñaanal ñun ñi fi desit di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm musal ñu ci lu bon ak musiba ak balaa ndax coow li bëri na mm-hmm. ñi ñaan rek yàlla wis ci ndox mu sedd allahumma amin am na solo Baye Fall tey ma ñëw ci ah, li ngay def muy calebasse euh, mën nga ñu expliquer lan mooy calebasse parce que souvent dama nekk benn euh, affaire boo xam ne dafa raar souvent ci ay ngoyaan lañ ko doon gis mais tey nga ñëw indi ko ci benn rythme di ko di ko boole ak ay ak ay bit gis nañ léegi sunu frère boobu di Chérifo son bi niñ ci def mu doon loo xam ne dafa rafet mën nga ñëw ci Calebasse nan la la inspiré. waaw Calebasse euh, suñuy wax ni fii lay sax ñun ñoo moom Calebasse ñu bëri dañ doon xalaat Calebasse dañ ciy ndugg wala ñu jox la garab ni la sangoo ko wala buñ lay may soxna ñu ne laax bi ngeen di lekk ci leket lañ koy def mais ñun gisaat nañ ci leneen muy lan Calebasse war na mën a dugg ci musique. comme neex nañu fii la poussé ci réew mi ñu ne pourquoi pas ñu introduire ko ci musique bi lii daal mooy suñu inspiration ci Calebasse. Mm-hmm. art bi foo ko jàngee art bi. bon art bi mun naa ni dew ma ci kenn mu jàngal ma ko. mais comme man aw départ je suis un batteur batteur là euh, pour mu jouer xëy na Calebasse dinaa ci am facilité bon am naa amour bi. fi ma nekkoon en France dama yóbboon ay calebasse yu bari mais comme dama daan wéet lu bari loolu ma gën a may doole ak inspiration may jël calebasse bi di jouer ndax foofu batterie doo ko mën a jouer ci kër gi nga nekk. Mhm. inspiration bi daal foofu la ma dikkalee quoi mais jànguma ko fenn. donc nan ngay mën a def bay mën a bay mën a bay bay mën a jouer ci ci yenn ci yenn son yi wala ci yenn but yi comme son bi nga xam ne mooy Cherifo. Mhm. liñ ci def mu rafet trop. waaw parce que xam nga li ñuy wax ni musique yëg-yëg la. comme Serifo artiste bu mag la ba pare lu muy way moom dafa particulier dafa nekk loo xam ni moom moo ko moom yëfam la daal euh, dégg naa morceau bi bon d'ailleurs sax ma ciy remercier sama benn jigéen bu tudd Aji moom ma découvrir loo Serifo benn jour dafa ñëw rek ni ma voilà mais waykat bi doo def dara ci morceau bi bon finalement mu tegal ma ko mais daf ko teg rek ma yëg ko ma ni ko bon filmer ma noonu la ma dikkalee ma joué ko et sa ça marché. bës bi mu def xaaroon nga ko. bon xalaat naa ko xalaatuma ko. parce que xam naa ne li ñu may def dama ci wéet ci àdduna yemul rek senegal ndax amul koo xam ne day tëgg kalabaas di def tambourin di def ay maracas maa ko jëkk a def ci àdduna moo tax ma ni nit yi bëgg nañ lu bees. kon suñ ko liggéeyee nu mu waree bu ko jaam ñi gisee ah yàlla mën na ci def jàmm. mu mel ni yaa ngi koy wax da nga ci wéet ça veut dire que art bi ngay def nii yaa ko njëkk def ci àdduna mais est-ce que yaa ngi ci am ay retour ci yeneen ci yeneen artistes yi ñëw di la jege pour jéem a gëstu xam-xam bi nan lañ koy exploité ginnaaw bi vidéo bi jàllee waaw ginnaaw bu vidéo bi jàllee Serifou bon dinaa ko jaajëfal parce que euh, lu ëpp bës ci yi ma def parce que defuma njëkkeewu ma ko ci Serifou def def naa waykat yu bëri fii mais xëy na moso boobu moo ma taal euh, ñi may woo ñu ci ëpp ay waykat lañu dañuy gis koo xam sax daf may woo ni ma defal ma sama morceau. ndeysaan waaw. ju benn rek du ñaara ah, bëri nañu. vidéo bi est-ce que jot nga ci déggante ak Cherifo Extra. waaw ba affaire bi génnee vraiment euh, Cherifou Baye Fall la daf ko dégg ni ma vraiment affaire bi dama ci kontaan parce que yokk nga audience su morceau bi. Mhm. Mm, ma kontaan trop ñu échanger ay numéro vraiment xam naa féeg le temps dina am ay surprise daal. kon loo xam ne yëg na ko yëg naa ko. mën nañu xaar ay duo yéen ñaar. pourquoi pas parce que moom yëg na li may def yëg naa li muy def. Mhm. pour ñu duo kon c'est facile pour ñu def ko. ba mhm. pare nit yi bëgg nañ ko. Mhm. même boo xoolee ci paas bi nii ah, euh, gars yi commentaires yi loolu la ñuy wax a chaque fois pourquoi pas yow ak Serigne fu ngeen def benn affaire ñu ngi ci doon waxtaan mais yàlla baax na daal. Mhm. avec le temps xëy na dina am lu ñu jox. Mhm. Euh, fans yi incha allah. d' accord euh, kan mooy Baye Fall. waaw Baye Fall benn Baye Fall la bu doyee di rek nekk artiste musicien nekk fii Malika plage ubbi fi benn euh, espace am di fi jaay lakk jën añ place su fiixlukaay et cetera. accord ma waxtaan ak ñu la xam. Mhm. ñu am lu ñu ma waxoon ci sa démb. ci yan moment nga demoon extérieur pour aar suivre ko mu continuer wala lan moo la yóbbuwoon extérieur. waaw extérieur lu mu fa yóbbu na ma demoon regroupement familial dama amoon soxna foofu ma soxla moom ma yóbbu Europe bon balaa loolu doon naa dem ak yenn groupe yi ànd naag Kumba Gawlo Europe ànd naag ay dabi ay waykat yu bëri daal. Mhm. finalement ci laa fa am soxna marié ñëwaat fii. benn temps affaire yi doxul ci la ni ma voilà pourquoi pas nga ñëw tenter fii xool looloo ma yóbbu Europe. bi nga demee yaa ngi doon continuer di suivre art wala danga demoon di liggéey. waaw man nag aw ma woon sensu liggéey mais mës naa liggéey ci euh, tool parce que man bu ma jógee fii pour toog Europe changer Espagne laa njëkk a toog mais quelque mois laa fa def soog a dem France. suma carrière musicale lu bëri nag France laa ko exploité. Euh, aw ma woon sansu liggéey mais benn yoon laa mos liggéey ci tool di dagg ay rasin quarante cinq non matu ko sax maa ngi def vingt cinq jours laa fa liggéey mu jeex mais li may dox yëpp ci musique mu gën a gaaw ko mooy uti liggéey ma ne pourquoi pas kon xëy na yàlla daf ma nattoo ci musique bi looloo tax bon li ma nekk foofu yëpp musique laa doon suivre. Mhm. ak yeneen groupe yeneen nationalité voilà. yaa ngi doon am fa waaw ba pare amoon naa fa suma groupe am na ñu bëri xamuñu woon ni damay way. damay way waaw am naa fa groupe doon jouer ñoom def ay festival yu bëri mais comme man batteur mooy suma métier batterie ci laa dem commencé intégrer yeneen groupe ay capverdien ay français amoon naa sax ay groupe ay jamaïcain yi def reggae ñoo xam ne tamit ay togolais lañu. bëri na daal waaw. Mhm. bëri na. Mhm. nga nekk foofu di ko suivre. Mhm. sa retour Sénégal. waaw suma retour am na benn mission moo def ak Padros. ñu koy nuyu sunu frère boobu. way bon ça parce que dafa mel ni affaire bi tay la woon moo tax retour bu metti la te suñ koy wax xëy na sax duñ fi jóge est-ce que temps bi dinañu ko may. waaw mais souligner ñu ci sa retour Sénégal. bon retour bi metti na. parce que dama ñëw parce que suma yaay dafa feebaroon ma ñëwoon fii am lu ma indi famille bi am ñu ko yàq ma découragé dellu kaaw ma delloo ma ni bon man Sénégal pare naa fa bon lu tax ma pare fa parce que dama amoon ñu may wóolu woon sumay frère ma jox leen sumay bagage pour ñu jaay ko mu jur ay valeur millions yu bari affaire bi mujjee tombee dans l'eau ama delloo amatuma envi ñëw mais comme suma yaay laa fa am mi ngi doon di feebar tout le temps suma magu jigéen daal moo ma gën a poussé parce que daf ma doon woo ak ay jooy mhm. finalement voilà ci laa ñëwee d'accord yaa ngi wax ni da nga fi investiroon alors que yalwaan bi këpp euh, pourquoi toogoo jéema a lijjanti loolu waaw mënu woon toog parce que booba groupe yi may joué Europe bëri na ba pare bagage yi li ma indi li fa des moo ëppoon il faut ma dem pour ñoom ñu job affaire bi am continuité. Mhm. loolu taxoon mënu ma woon xaar ndax fii pour nga génne conte conteneur quarante pieds xam nga te xaw metti mhm. ci lañ dem def démarche yi affaire bi jëloon temps. Mhm. demoon na sax ba benn moment dama doon obligé pour bàyyi ko fi mais mënu woon ne comme valeur ngi ci woon il faut ma génne ba ma ko génnee nag temps bi xat na ci man ma ni booy yi bon gérer leen affaire yi man ma dem looloo taxoon ma dem. bi ngay dem waxtaan nga ceeg sa yaay. waaw wax naa ak maire bi damay dem parce que il faut ma dellu am naa liggéey bu may xaar en même temps tamit war naa defaraat place bi ma fi bàyyi kon il faut ma dem mu ñaanal ma ma dem. Hmm. mais ba ma demee dama toog ay temps ñu lay woo naan la fayuñu kii bi nga ne ana bagage ñu naan la nii ak naa du la wax lu leer xam nga hmm. Sénégal rek. nga nekk foofu bàyyi fi valeur di fayaat ay location affaire bi metti ci laa commencé nag découragé. Mhm. mais avant may dem dama amoon ambition su ma demee def trois quatre mois ma retourné. Mhm. mais finalement ni ko yàlla tuddee. boo yàq nañ affaire bi ma xaw a mer. loolu taxoon ma yàgg foofu nag waa sama yoon boobu. Mhm. sa digganteeg sa yaay bi ngay dem ndax euh, euh, d'après bi ngeen ci waxtaanee yan décision ngeen ci jëloon. non maire bi moom tàmmoon na di ma gis may dem di ñëw moom dafa jàppoon ni rek damay delluwaat comme d'habitude su ma mësaan ñëw. damay toog sama séjour jeex sama kii jeex boog vacances après ma dellu. xamul woon qu'est-ce qui se passe. non non man avant may dem y a ba ma demee la ñu yàq affaire yi. d'accord mais ba mu fiy nekk tout est bien. Mhm. amuñu woon benn problème ñi ngi liggéey suñu wàccee dañuy verser xaalis bi ñu xool fu ñu koy dugal yu mel noonu mais restant bi fa desoon au ñu gérer ko foofu la ñu amee problème. waaye mhm. nga dem. ñëwaat yaa ngi koy wax sa grande sœur bi. Mhm. doon la woo. waaw suma grande sœur bi abi maa ngi lay ziar abi voilà mu mun naa ni mooy mère bi mooy yaa mooy papa. ndeysaan waaw. Euh, moom da doon def à chaque fois bu mère bi feebaree su xëyee fajar daf may woo wax ma mère bi voilà wérul après ci la yàlla def benn jour rek mu woo ma fajar ni mu ko waxee. ma ni comme dama tukki te fii boo tukkee nekk Europe duñ la wax ko dee ma ni pourquoi il faut ma dem ma xool suma yaay quoi parce que moment yooyu def naa quatre ans gisuma mère bi. Mhm. ak système bi nu ma woowee. looloo yokk tax ma ñëw. et ba may ñëw dama ñëw mu brusque dix jour laa amoon billet. dix jours waaw mais ba ma ñëwee la promettre mère bi comme quoi que su ma delloo dinaa ñëwaat pour toog un an ci wetam. ma dellu trois mois siste bi defaat même chose après ci laa ni nag cette fois ci il faut ma dem ba may ñëw bii aller laa jënd li ma yor matul cinquante mille ma ñëwee moom senegal parce que boobu suma yaay moo ma gënaloon lu ma am. Mhm. il faut ma gis ko. ñëw naa toog un mois Covid bi ñëw. Oh. deux mois suma yaay gaañu. ci biir oh. Covid bi. Oh, jour bu mu am deux mois ci suuf suma sista bi ko yore woon gaañu aussi bon dagg rasta yi life bi tourné ci man lu ma neexoon naqari ma ci laa toog nag ba léegi nii delluwaatuma Europe. yaa ngi koy wax mu doon moment yu difficile. Mhm. ngay ñëw ëndaale même pas cinquante mille francs ñëw tamit fekk situation kër gi. Mhm. naka nga doon dundee loolu. ak mère bi feebar. ni ma doon dundee bon. su may jarbaat ñi ngi fii su may rakk ñi ngi fii am naa ay xarit aussi parfois nit ñëw xool la xam ni kii ñëw na ci moment bu difficile mais booy soog a jógee fële duñ la comprendre waaw ñenn ñi dañ naan da nga fo ñenn ñi lan la ñuy wax dañ ko refoulé lu ne dégg naa ko mais dama àndoon a gëm xam ni man ki tax ma ñëw mooy suma àdduna ndax bu dul woon ak moom du ma juddu tey mhm. moo tax su ma amul sax dafa mel ni am naa moo tax chaque suba bu ma yeewoo comme bokkuñu woon kër damay dem seeti ko mu dolli ma doole ma dem doxi samay dox. Mhm. moo tax même su ma amoon problème mu xaalis wala ma am yenn souci yi daaw ma sonal. Mhm. waaw noonu laa ko doon dundee. Mhm. nga jógee fa sa dem. mu doon beneen problème. waaw problème la parce que moment bi sista bi demee nag ci la affaire bi gën a metti parce que mère bi dem na xam naa ni yàlla mooy dundal mooy yóbbu mais système bi tamit dem ma gën a xam ne kon réalité ñëw na daal lii rek ay dëgg dee rek ay dëgg quoi bon ma gëm loolu mais toog naa ay guddi du ma nelaw ay weer du ma nelaw ay moment mu metti torop mais au fil à may dem di dem après ci la yàlla def dañ koy xaw a fàtte. d'accord <laughs> waaw lan ngay regretter en fait. lu may regretter. lenn kese la suma yaay gis na suma këyitu terrain mais dugaluma ko ci kër gu ma moom. ndeysaan loolu lu ma marqué la heure bu ma toogee di ko xalaat daf may metti mais ci kaw feebaram ñëw naa man ko yaay am naa terrain këyit gaa ngi nii ne ma koy tabax mu ni ma sa rakk yi yàlla may na leen mais man sa kër laay xaar soo ma nee ma ñëw ma dëkkal la. ba ni mu gaañoo eggalewu ma kër gi loolu lu ma metti la mais nag yàlla mooy dogal. pendant ce temps mère bi dem sa sœur dem. Mhm. ñi nga doon jàppale wóolu woon leen di investir ci ñoom parce que moment maa nga doon ñëw difficile na. Mhm. ndax gisoon nga leen. Hmm? ndax gisoon nga leen. waaw am na ñu ma gis am na ñoo xam ni sax yàlla seen dem sama loxo la ko jaaralee. Oh. waaw ñi ngi kaaw. ñenn ñi mun nañ ma woo parfois ñeen ñi duma leen sax dégg am na ñeneen ñoo xam ne sax noonu lañ lay def waaw ci tele laa nekk quoi. te loxo lañ jaar. waaw li tax ñu dem maa ko def am na ñu ma yóbbu am na ñu ma booleeg ay nit ñu yóbbu leen am na ñu ma tànte mujj mujj ñu dem xam nga bëri na daal bon comme ñun dañu judd ci partage loolu laay wax ñun lu ñu am dañ koy partagé. am na nag ñoo xam ni ay gor lañu ba tey ñi ngi jàpp ci combat bi chaque jour dinañ xam ci lu ma ne buñ ma waree aider tamit dañ may aider mais man xaaruma ku ma aider ndax maa ngi liggéey yàlla bawu ma. pourquoi nga décider toog. lu tax ma décider toog parce que je suis un ba pare dafa jot aw ma lu may prouver depuis 1999 laa njëkk a dem France boobaak léegi ñi ci juddu woon ñenn ñi sëy nañu bu dee ay góor mun nañ am jabar mhm. kon. amatuñu daal lu ñuy namm foofu ñu ne comme fii nag toog nañu ay at ay jour ay weer nekkuñu fi ñu investir fi dara toog fii plage Malika ba ci kanam. avant plage Malika. Mhm. bi nga ñëwee Sénégal toog sa premier investissement. waaw suma premier investissement mooy li ma li ma la doon wax amoon naa benn boutique di taxoon ma ubbi ko parce que suma suma yaay. comme dama ko promettre woon toog un naa musique bi doxul il faut ma jéem ut lu may def ma ni li gën a gaaw Baye Fall laa café ndax dama bëgg lekk nag xam naa moo tax ma am inspiration di jaay lekk <laughs> ci laa dem ma ut benn place ni pourquoi pa mu ubbi ko di fa jaay kafe ay sandwich affaire yooyu mais comme mënuma woon segg kafe dama doon def su ma xëyee damay wecceeku xaalis ay fukki dërëm 6 heures du matin nag laa yeew dama mën teel a yeew te su ma demee lundi gauche mardi ma def droite di jënd kafe rek ku ma ñamee bu neexee man naan ko bu neexul man naan daal di teg. waaw dem ba gis ki daq defar kafe ma dem ni ko dama lay fay nga jàngal ma. pour ma mën a segg kafe waa ji nekk ku baax ni ma loolu mosuma koo dégg sama àdduna <laughs> mais dinaa ko def mu jàngal ma ma commencé di segg kafe am place luye ko di segg kafe première jour bi jaayuma dara oh. ma xëy la laan demee comme fii dafa tàng te kafe boo ko suukaree tëj ko ci kii fu tàng boo xëyee day tourner waaw café gi yàqu ma ñam ko xam ne mënu ma ko jaay ma xool ba nit ñi évacuer rek ma dem tuur ko ci rigole bi defaraat kafe jour boobu quatre ci ngoon laay soog a jaay première casse benn booy moo njëkk ñëw ma jaay ko kafe mais jour boobu bëgguma ko woon jaay. lu tax waaw parce que olof danaan ku la soxee ah da koy téye daal ma it naa téye loolu. jaay naa ko wax naa ko ko sa deer ni ko booy su fekkul woon li nga ma soxli dama lay may kafe gi mhm. ndax su ma toogoon tey jaayu ma amaana mun naa découragé mais da nga maa yow tey yëgoo ko mais avant muy jeexal café yeneen booy ñëw grand kafe am na waaw ma jaay leen mais ku ñam rek yàlla def ci barke nag kafe mhm. gi neex leen dem naa ba koñ ba da ngay gis mag bu jógee këram ndekki kër ga yëpp maa leen di jaay kafe ñenn ñi dañuy abone ci man dem naa nag ñafe def fa ay beñe ay sandwich def fa lu ne mais après li may jaay ak li may fay par mois du ko mate ma ni kon fii du affaire bi. plage Malika fa laa daan fooye ba may gone. pourquoi pas comme man jàng naa plage ba ma nekkee Europe aussi naa ñëw ma installé fii. bi ngay installé Malika c'était moment yu difficile mu tombé woon ak nawet. Mhm. moment yooyu. waaw métti woon na parce que suma benn xarit Fadel dama lay ziar. dafa <laughs> daf ma encouragé mënu ma def nañ dem parce que li ngay wax ni idée la comme amoon naa ñaari taable ma jël table yi rek yenu ko sam benn xarit di ngi yoroon moto kees yooyu. waaw indi ma. ma ñëw installé teg samay affaire am na ñoo xam sax comprendre ñu parce que boobu y avait rien ici amul dara. dëgg la am na ñoo xam ne dañ doon romb naan ndeysaan kii dafa ñëw sorti fekk xamuñu man dama ñëw pour jaay si. Mhm. mais comme yoruma woon xaalis sama benn jigéen maam Ndiaye ziar mu lebal ma set ginaar mais ci jour boobu dama jaay trois yi mu des quatre ak brochette yi ma jotoon a defar ma ni bon comme jaay naa naa bàyyi ba suba dimanche xëy na géej gi ci lay ëpp nit. ma ñëw teg sumay affaire mooy fii ñu toog nii ah. waaw. ay une ci guddi maam yàlla ji ngelawal booli ginaar yi xajam. Oh. sama siège damm. voilà affaire bi metti torop mhm. yàlla ji di taw ba sept ci suba. mais moment yooyu comme suma copain bi daf ma doon jàppale rek mënu ko wan nu ma affaire bi def. ci laa ñëw ma jël yëpp def ci suuf pour ngelaw li bañ ko yóbbu palaat yeeg sees yeeg yëpp ma takk buum dem toog en face pont bi jàkkaarloo géej gi daal di xool bagages yi mais boobu maa ngi liw mais copain bi sonn na mënuma jooy parce que du ko encouragé mais yàlla suturaal ñu ay sept taw bi jeex ma woo ki ma jël si woon ki ma indi pour mu jël si ma finalement mënul ñëw parce que yoonu caara yi yëmbal benn baraak yëpp a fees ndox jour boobu 22 heures laa jóge fii ci plage bi pour ñibbi suma kër ma ñëw rek soxna si xam nga tooyal sama xol jooy ndeysaan andi ko nag lii xëy na lii mooy asaka bi te fee ñu jóge dañ fa war a dellu am na lu ñu fa war a def man yëg naa ko tey metti na mais du ñu lâché semaine prochaine damay dellu te ba may dellu femme bi daf ma lebalaat ginaar. ngor. xam nga nan la ma dikkee ba yàlla suturaal nañu tey ñu ngi fii di ñafe. par rapport ak li nga dund ay moments yu difficile. Mhm. lan moo la poussé lan moo la motivé ba tey nga toog rester ak sa conscience tranquille waaw parce que fu mu toll nii affaire bi màgg màgg na man kese mënatuma yor kër gi am na ay jigéen ñu fi liggéey am na góor ñu fi liggéey. ndax yomboon na confiance bi par rapport ak li nga dundoon benn avant Europe. Mhm. tey nga ñëw Sénégal investiraat woo nit ñi kaay leen ñu liggéey. waaw dafa metti ndax lu ne dégg naa ko Baye fal ëmb na rek laa déggagul. Oh. waaw day jaay sàngara day luwe ay jigéen ñu toog fii lu ne dégg naa ko mais nag yàlla suturaal nañu ba léegi daal loolu ñuy wax gisuñu ko ci ñun musuñu ko fekk tamit ci kër gi. muy man muy ñi fi liggéey kon may sant yàlla. nga ñëw ci dëkk boo xam ne xamuñu lii. Mm-hmm. Malika xamuñu woon comme ñëw ni toog ci place bi teg parasol xam nga di teg ataaya extra di développé di waxtaan tey nga ñëw imposer loolu ndox yomboon na ak waa dëkk bi. waaw yombul parce que du mën a yomb parce que am na ñoo xam ni dañ daan toog sax di ma ko wax naan ma voilà est-ce que doomu Malika nga mais daf may metti ma ni leen mais yéen comprendre leen kon lu xew ñu ci ban année deux mille vingt trois ah? adduna dañuy échangeante. Mhm. man ko man Europe laa jógee nit yu weex a fa nekkoon dañ ma intégré seen réew dañ ma boole seen réew. Mhm. man may sénégalais nga may laaj ba xam Malika laa juddoo. ñu mhm. on travaille pas pour Malika. nous on travaille pour le Sénégal pour l'Afrique pour le monde entier kon bu ma wax ay doomu Malika nga. lenn moo ma doon metti lii nga fi def du defu defuwul walla lu bon la mais lan ngeen fi gis loole ma mën a rapprocher lu dul ay doomu Malika nga nous on travaille pour l'Afrique nous on travaille pour notre pays amul benn carte d'identité sénégalais bu ñu gis naa la Malika nga ak wala nga juddoo. Mhm. sénégalais la ñuy wax. d'accord tey lan la ñu mën a xaar xam naa fa lay jeexalee ah. ci programme bu kër gi pour ñi nga xam ne dañuy ñëw plat yi day nekk plat du jour wala programme bu kër gi en fait pour ñi nga xam ne dañuy ñëw ku ne xam ne ñu ngi ci waaw été bi nag am na ay surprise yu bëri incha allah buñ fi yàlla bàyyee ndax am na festival buñ fi war a organiser incha allah. Mhm. dina am ay artistes yu mag yu fi ñëw ak artistes locaux yi nekk fii parage bi dina am tamit suñu mbokk théâtre kat yi na am ay one man show xale yi aussi sóor nañ leen ci. bëri na daal programme bu ñu war a def ci été bi incha allah. Mhm. ba di fàttali nit ñi aussi. place bi nekkul rek pour lakk jën fii dañ ko defar pour nit ñi di fi divertir surtout artistes yi ñëw di fi ndax looloo taxoon ñu am yéene pour ñëw installé wu fii. Mhm. parce que Pikine ba Kër Massar Malika gi sax lii amu fi am na ay artistes yu mag yu fi ne mais bu ñu waree jouer ñi ngi dem ba ville. Mhm. boo xawee jege tuuti Pikine ngay yem. kon pourquoi pas ñun ñu créer loo xam ni da ngay nekk di xool géej gi. Mhm. jouer concert. Mhm. loolu mais c'est beau. Mhm. loolu moo tax avancement kër gi daal artistes yi ñoo ci gën a bénéficier ak ku dul ndax ay anniversaire daf fii am ay réception sax voilà mun na fi am ndax place bi macha allah xaw na yaatu. te mun na accueillir ay. beaucoup de gens. Hmm. d'accord am na solo euh, moom laa dalaloon fii mu di Baye Fall. nekk ku am jom si nekku nangoo liggéey nekk koo xam ni place bi li mu wax rek